serigne gédé xamul dara dafay naxe uteg mbay ak numbé yoruñ dara di ñafé fe amado kumba dañ leen nax mbaalu ki mako ko amna pa bu bay am xar fayé ko bor toog jofal tabaski jofal jofal tabaski jofal jofal tabaski jofal tabaski jofal oh we eh. oh we eh, no gay japp sëtëtëtëtët ñu mën kott daal amuñu mbaam yor soxna su rafetee nii jongamaa nii ngay seeg moom si kër te doom sax mënoo ko am ak moom ba noppi jiñ sa bopp jàngoro bu la dalu ay baax ñi xam nu may def ak ñoom. gis nga yi la doon wax gis nga ni dafa rafet. faaw nga xam nga sama lu Tikul ji li jap, lay jàpp di ko litti ah, ci tabaski mari ya kalau make up make up make up bu ada. ah Ari sañ fan nih mau make up nga Gak soft affaire oh bëri yi nga saf jigéen sih moins génn ci lu bëri ci loolu nag génn ci loolu dafa rafet de loolu daa tey ci jàppoo moom loolu moo tam dokku def leen di wax solo sañ si rek damay actualité naka tàngaay bi tàngaay baa ngi nii rek naka mu tànk ah kontaan naa ci yow de kontaan naa ci yow lool nag. waa tante kontaan bi demee na. ah li nga defal sa rakk ji teraanga yi nga ko jo muy yére yu bari yi nga ko jëndal. ah maa rëcc na rek waxoon naa li ma ko wax kenn waaye maa rëcc. waay waay tamit jarbaat mënu nga ma koo dajal ak yow it. ah déedéet sa bopp rek toog nag. mbuubum xaj yomb na. dagalal sa bopp rek. Xadija xajam bi da xajam bi dafa nee na ma fexeel ba daa couverture boo xam pour sama xaj bi la rek xam nga bi xoola maa ngi koy natt ci loos bi lii dina jot dina jot xaj bu ndaw boo am 4 mois. baat bi nga ko mesure. foofu nag la problème bi nekk. xoolal xaaral su ma génnee fii rek wala dama jaasi sama téléphone yaa ngi dégg. waa Keba. yaa ngi ci jàmm. namu naa la de yaa ngi ci jàmm. maa raw nag naka ma mesure daaw ma eh ñaw bi dafa yàkkamti de ñaw bi dafa yàkkamti non nataal ko rek ok na nga def yaa ngi si jàmm kaay nii da nga mel ni ku jàkkaarloog ni na nga def maa ngi fi yaa ngi si jàmm sant yàlla tur bi nan la mama la loo loo loo ñawlu man tey baas da laa bëgg bu toog nag tey baas bu toog bu toog tey baas bu toog tey baas bu toog 124 épaule 124 épaule 124 ah. ah waaw waaw <laughs> foofa ni ko ko rek foofa nii rek ko mën a defe rek doo dindi mu mi bàyyi soutien yi kese mu ni yére bi dafa am ay langue nii yow papa nattal damaa yàkkamte man <laughs> waaye Mamel 49 Basta wala Mariña yow xanaa yaari cuube nga sol kii longueur vingt-sept wan tourneel tourneel nii yéen nag ngeen bëgg ay létt torop sa poche dara néew ci yow xaa dañ am lax sabaja sabaja na leer wala samaam <laughs> yow mii waaw waaw des fois doo ma xoolal fii fii fii fii ñaata la xamoo ko 132 132 ah, waaw mais foo nattee kii bi fes 132 ah foo ko man kii ba xam <laughs> maître bi dafa mel dafa xawa dag dagg. <laughs> yow waa kii ba foo foree lii. waaye eh eh. doo wax ju rafet. nga foo foree lii ah. xanaa bu dee dan maa for yow dan laa téléchargé rek nga ñëw. ah de amut solo li moy wané ni doomu do nga ñoo wara and bokku len nday ngeen bokku bay bu len dara bu len dara boone gis nga jamono ji ku ne doomu bay neexul bobu da fekk da nga gisul ki nga bokal ge ñoo li ma lay ñaan li ma leen di ñaanal seen ànd bii mu sax dàkk bu leen dara jaxase. bu dara jaxase. tante bul jaaxle. Mhm. pour lii bul am leen lay tiit wala looy ragal. kii mag moom yàlla def ñu bokk deret kii mënu si dara. eh waaye ndaw Samba. ta deret bal mais yow lan la. waaye yow sun la walla mën lay. yow ban nga fi def. ba ku nekk di ŋawta ŋawtee sa tuur bi di la sant ka gërëm. yaay defuma dara. eh eh lug xool ma laa la wax bët ak bët lan nga def. yaay defuma dara. ay man fan laa ay man xale bi yàqu na di yow yaa torox nit ku bon nga waaye gis nga àjjana si suufu tànk yaay rek la ne ay vingt kilomètres laa la wax xam noppeeguma fépp xoolal àjjana du la xeeñ du la xeeñ lu toll ne misqaala zarat ay gis nga sama xol bi ngay tàngal yàlla na nga dee yow ay yàlla dee lan la arrêté bëggal jaamu ñun dañuy waxtaan rek eh, feeb nga puuj ko wax ak yow nga ne xuj ak sa wow bët say taraas yuy sutante ko wax ak yow xoolal naa la face to face nag waxuma ak yow waxuma ak sa rab sama doom laay waxal gën léegi ne ku am fit xaar ma ma ñama ari lu mënul neexul lo ragal lu ne dalay gaay sonnoon nañu lool ci ñu ñuy GP ay produits yu ñuy utiliser ngir suñu bopp fii mooy BBC Shop vente produits alimentaires venant d'Amérique yamul foofu vente de téléphone portable et accessoires ak wàllum transfert d'argent lépp ngi ci boutique mani xale yi jigéen ñi des produits pour femmes sont disponibles des collagènes des oméga 3 pour la forme ay produits yu mucc ayib pour seen biir ñi nga xam ne dañu bëgg jeex am nañu aussi ay parfum ay make-up lépp lu jigéen di yittewoo mi ngi ci biir boutique bi. ane xale yu goor yu bëgg dag yu baax mané ay protéines yo xamni boko nané yaay raw Usain Bolt ay vitamines ay produits alimentaires yu baax baax. mo lu ngeen xalé yi ngi ci biir mané ay jus bonbon ay épices pour togg yu saf saf. ma ne xeetu bu baax dal fi rek la tek baax. ci gattal lepp lu nit bëgg mi ngi ci BBC Shop. alors qu'attendez-vous ñi ngi nek rond-point Mbour 1 quartier Ousmane Ngom téléphone 77 875 14 14 ba livraison partout. partout à Thiès et aux alentours ak BBC Shop bëggal rek loo bëgg fekk kafa mani ñun moom rek la à votre disposition Kayop sey Ange. sey say ak sey veste doo gis ben effet secondaire Manila au produit en base de carité. Carité l'on ko faire. 20 jours ñaar fukki fan dong la may bu la ne génn commencé njaab njaabu fini les lèvres noires le secret est avec Zo Beauty Cosmetics. Quand vous sa tuñ ñuul désormais sa bopp le VIP lèvres roses, mu faj sa aajo yow ngi fii ci Dakar waaye livrer partout au Sénégal Wonu gaaw 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03 Zo Beauty Cosmetics. moy suñu choice yow. ma tàllal loxo. bas lay ñaw de. wa wa wa wa tàllal loxo de. wa ah mu jël ah ma maas ba si loxo ba ci kaw. wa waaw tàllal ni man dama koy jëlee ni mu waay. ah wa yow ni tam. naqari ngeen a ñawal tool. ah wa tamit. Ah, yow jël ko mas mas fi xol ni yow nak papa génn ci li nga nek nak mas mo muso gis ku koy aj yow masu lan nga mëna ra defara ak sama loxo ba ci kaw yow lii lan la tey lii lan la fii laa mooy mooy poids ba ah. la si àdduna yow dina si xanaa jënd ci li nga xam day xanaa bind mën ko man lii sax xanaa bokkoon nag ci li ma bàyyiloo tayer nu nu xamati ñu mel nii léegi baa ma jëlal ko école 44 44 waaw lii lañ bëgg ñoom la nga leen di natta mel ni kuy jël sa nopp bi di ko teg ci seen euh, cuus jar naa xool naa cent douze. cent douze. waaw ah yow man épaule épaule man cent cent quarante cinq laa nattoon. cent quarante cinq. waaw noo ko nattee ma ko. fii xoolal fii laa déparé woon fii defe fii. Ah, fa nga jëm a fii laa ko jë ah. fa nga jëm a sori. ah Ah, va, va, va, va, va. enfin du foo nekkoon depuis sànq ba léegi ma lay woo jëloo sa téléphone. embouteillage rek. instant bii moto jëloo sa téléphone. oh instant bi je suis dama sonn. maa la gën a sonn man mii li ma yëg sama yaram man maa la gën a sonn foofu. mais lu xew lan moo tax nga agité nii comme ça. bii yaay fàtte garab bi ma sëñ bi joxoon. waaw ba ma ko utilisé ba léegi àndatuma ak sama sago. waaw sëñ bi anamu.

cey sëriñ Gédé xamul dara dafay naxe uteeg mbay ak numbe yoruñ dara di ko ñafe modo Kumba dañ leen a nax mbaadu ki ma ko foog am na paa bu demoon bay am xar fayee ko bor toog. Eh.

tabaski jofal jofal tabaski jofal jofal tabaski jofal owe owe nogai japun narbi nogai japun narbi owe owe jofal indegul kharbi jofal indegul kharbi